yéen ñëpp dañuy taxaw fii ñu respecté ñu dañuy respecté nit ñi ngeen taxaw fii. loolu leen ñëw dañ leen mën a fekk ñu organisé ba pare ngeen bëgg a wàcc jëm ko. waaw waaw léegi ñu ngi fi. ngoonee taxaw waaye bàyyi rek bàyyi rek waa Mbour TV euh, namoon naa leen lool lool lool lool ñoo section de recherche bu Colobane ak ak euh, maître El Hadj Diouf ak journaliste yi menang ya, weh. Kamu organis. tenir eh, le point de presse parce que pour le moment il y a une course mais comme va passer sa première nuit ici à la section de recherche les gars de savoir les raisons les raisons vous avez certainement lu mon poste. Get Ouais, allez, c'est bon. C'est bon. Cinq, quatre, trois. day yéeg rek. waaw ñun ñii di wàcc yow soo tax ñu wàcc. bu bu bu jóge bi la bu fi jóge na ñun ñu seen mi na mais xaar journaliste si organisé wu parce que fi ñu toll ngandum désordre moo fi am ndax ñëpp bëgg a jël léegi euh, caméraman nee nañ ñi fi jiitu ñoom ñooy yéeg ci kaw na mettre taxaw te fi ñu toll nii organisé guñ euh, pour mettre war a mën a def déclaration mais ce qui est sûr mettre dina def déclaration taxaw leen taxawal leen non non a maître moom du dem non maître du dem maître moom mënul dem parce que day wax ak journaliste yi quel que soit alpha maître moom du dem te waxu wala boog ngeen xam ne danañ xool nu ñu organiser pour mu wax ak ñun mais pour le moment pour le moment maître moom waxagul dara léegi xam naa ne dañuy xool nu ñu organiser woo rek pour euh, mën koo jël dans tous les cas maître moom dina def déclaration eh orga eh yan doo leen organiser eh caméraman eh yéen xaaral ma xaar leen eh caméraman eh wuy leen ma eh ça eh eh wuy leen ma arrière leen ngeen dem installé caméraman eh def leen eh eh ngeen installé leen installé leen seen caméra yi non yow ñu ngi liggéey Com a bugazelia. ni ngeen ko gisee sànq xam naa lire sama publication boobu mooy Bouga Zali mi ngi il va passer sa première nuit ici à la section de recherche de Colobane Les avocats, bi rek il va nous donner les raisons pour lesquelles il a été son client et retenu à l'intérieur puisque ñom ñaar ñoo duggandoo euh, mais de source sûre xam ngeen ko en exclusivité sur Bou TV que ni Bouga mom fi lay yefanan euh, incha allah rabi ba suba que édition yi mën mais xamna condition yi ma gis aussi dana xawa a pour mettre eladiou da fi déclaration ndax ni nangou ñu organiser wu té pour le moment aussi xamna ku ci nek da ngay bëgg a jël xamna bo sagané wala ñu def ko en deux parties am ñu ñëk a jël am ñu mujjé jël wala sino aussi ñu jël comme d'habitude ni ñu ko doon défé rek ñu def ko en exclusivité sur Bour TV <coughs> moom bu mënta ñàkk ba ñàkk mom comme sabar bu tas fii kay waaw fii moom benn micro rek moo fi baax sax parce que yeneen télé yi moom <coughs> xam naa dana xaw a jafe comme yéen gisee Maître El mi ngi nii ci biir otoom toog en di xaar euh, li nga xamante nan lay journaliste yi di organiser wu mu ñëw euh, mën a def euh, sa déclaration mais pour le moment sachez que ni de source sûre moom Bougazelli mi ngi fii si section de recherche. te euh, si xibaar yi nga xamante ne jë taataan nañ ko pour le moment mooy euh, euh, moom fi lay fanaan moom Bougazelli waaw kon na ngeen xamee noonu Bougazelli fii lay fanaan gis ngeen ñii ay souteneur am lañ ay maire lañ jógee ba waay soxna si am nga loo ciy sànni ci kàddu wala am na loo loo am loo ciy wax. xanaa dëkk ak moom muy nit ku baax di nit ku yiw di nit ku sell mosuñu am na lu ñu naqari lu dul lii nga xam dañ ko ko teg ci daram bi sosol ko. takal ko waaye nag képp ku jóg pour def lu ñaaw pour yak der pour wax lo xamne li dara leer la ci yal na la yàlla att ak mom waaw. man may géwél man may man may géwélu partem waaw. merci beaucoup neena moy mooy géwélu parteem léegi Maître El Diouf génn na léegi ñu xol nan lañuy mëna fexé ba mëna wax ak mom waye xamna dana jafe. d'abord. Il ne faut pas mélanger les gens. Il y a des journalistes qui parlent déjà de mandat de dépôt. Comme vous le savez, à l'enquête préliminaire, devant les gendarmes et les policiers, il ne peut pas y avoir de mandat de dépôt. Donc je n'ai pas compris que des gens me posent cette question. Est-ce que il est sous mandat de dépôt. Seul le tribunal, c'est-à-dire le procureur ou le juge, seul le un mandat de dépôt. Des gendarmes et des policiers ne peuvent pas décerner. qui m'ont posé cette question. Est-ce qu'il va passer sa après nuit Maintenant, après enquête, après audition, M. Serina Fall Bouga est gardé à vue c'est la garde à vue, ce n'est pas le mandat de dépôt. C'est normal en hein. euh, enquête préliminaire, pendant la phase de l'enquête, qu'on vous garde pour sécuriser l'enquête, pour mener sérieusement et minutieusement l'enquête. Et après quoi monsieur Seydina Fall Bouga sera déféré au parquet de monsieur le procureur de la République. Il appartiendra à ce magistrat de donner la suite qu'il faut. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Il a été entendu pendant plusieurs heures, de 17 heures presque à 20 heures et poussière. Il s'est bien défendu. Il a répondu à toutes les questions des enquêteurs. Maintenant, la procédure suit son cours. C'est tout ce que je peux vous dire. li ma Begawa, bëgg a wax dama bëgg ci élément de langage yi ñuy wax dafa am ay ay journalistes yu laaj ni ndax mandat de dépôt mandat de dépôt amul mandat de dépôt am police

donc mën na juróomi waxtu mu leeral liñ koy laaj waaye xam ngeen ne bu ñu nee enquête ci dossier bu sérieux il faut ñu il ñu téye la mooy garder à vue ndax dañuy bañ nga am ay contact ak ñeneen dañuy bëgg nga wéet ak enquêteurs yi pour doo mën a wax ñeneen pour du am benn combine loolu moo loolu moo waral garde à vue mooy dañ lay kenn mënu laa gis à part ñu lay enquête waaye taxuñu ne yow yaa def de déedéet dañ ne téye pour def enquête bi ba mu jeex alors loolu nag enquête bi tey tontu na ci lingolaay yëpp moom Seydina Fall comparé nañu nag gendarmerie section recherche dina ko jéggal loolu mooy defeere dina ko jéggal procureur suba wala ginnaaw suba bu ko defee procureur moom mooy xool lan la dossier bi laaj foofu lañ tolloogum loolu laa bëggoon a wax jërëjëf. waaw man nag dëgg dëgg da avocat lépp lu ma dugg rek dama ci am yaakaar ndax euh, tant qu'il y a vie y a espoir loolu tubaab wax bu fekkee da ngay euh, dem di défendre nit te amoo espoir jalu ngay dem boo ñëwee jàppale nit kii lu métti métti métti parce que coow li bari na mais lan moo nekk ci dossier bi yéen xamu leen ko. doo ngeen ko xam loolu loolu wax ko du du sama cër aw ma ci droit xam nga dégg ngeen li ñuy wax le secret de l' instruction le secret de l' man du ma dem di wax loo xam ne waruma koo wax ëllëg alors ñu teg ma ay daan li may mën a wax daal mooy laaj nañ ko juróomi waxtu tontu na juróomi waxtu dawul raful léegi nag bu gendarmerie pare mooy première phase bi. tribunal jël dossier bi xool lu laaj mu def ko ci loolu rek la du dëgg jërëjëf. nee na euh, pare na jërë ngeen jëf s'il vous plaît léegi xam naa mi ngi dem jox ñeneen ñi nga xamante ni jotul jotul dégg mu mu wax ak ñoom waaye waaye dafa mel ni maître day day day daal day daal di dem. Euh, kon dégg ngeen ko ni ñu ko waxee noon information bi Bougazelli confirmé na ko kii maître El Hadji na ko euh, maanaam mooy euh, que Bougazelli mi ngi ci biir fii lay mujjee fanaan mu ne ko fii lay mujjee fanaan léegi ñii ngeen di gis ay souteneur am lañ ay femmes yu nekk fële ci Géejawaay la ñoom ñoo nekk noonu di dem ñoo nekk noon di dem ay jigéenam rek ñoo fi nekk tey ba ëllëg bu méttee ak bu seddee ñu ngi ci ginnaawam ah, bu doon fii ba ah. kuli kunta sax dinañ moom dawuñ tey dawuñu ëllëg waaw dawuñ tey daayul Seydina la tudd nag Seydina Fall la tudd Seydina moo nekk nii baax jàmbaare jullite lépp lu muy def rek lu dëggu la liñ koy waxal nag amul amul da di loo xam ne nag fi mu nekk nii nit ñi ci seen bopp dañoo bëggul koo xam ne ku taxaw la wala ku baax la ñoom dañoo bëgg a daaneel waa géejawaay dañoo bëggul kenn koo xam ne ku taxaw la ba buñ ne nii ñu ne Aliou Sall bàyyi na caisse de conscience buñ ne ñi ñu ne Bougane bàyyi na député Bougane tey di ko ëllëg daa bëgg lu leer rek daa bëgg lu leer rek Bougane yal na yalla yàlla génne ci li xam nga ne damoo kon guddi doo ko bëccëg ñi ko carrière nag ñu nga géejawaay du xool ñu ngi leen di xool ñu ngi leen ñu ngi xool xam nañ leen ndax lépp yàlla la xam nañ leen lépp yàlla te moom julit la julit ne me waay marché Sam waaw waaw dégg ngeen ko ni ngeen ko déggee noonu noonu la ame léegi mais dana ñëw utal presse ñëw fekk ñëpp taxaw nga waaw incha allah kon euh, mbokk xam naa on se donne demee incha allah euh, ñu dellu si ci audition bi nga xamante ni dafa war a commencé ni ngeen ko déggee métélaat ji wax ko euh, noonu la amee euh, Bougazelli moo ngi fii tey garde à vue fii ci section de recherche bu Colobane pour les besoins de l' enquête léegi xam naa ñu décroché bo prochainement incha allah bu ko defee ñu indi laal leen yeneen xibaar ok jërë ngeen